mais gis nañ ne loolu bi tambalé ba légui am nay gàllankoor am nay jafé jafe lég léeg ñu xeex ci lég lég ñu xulo ci lég lég ñu ray ci ay nit lég lég ñu ci laaj ay neexal niko Marcel Alain de Souza waxé ñu japp né jaaduwul na bu dé dañ naan kay kenn warul def corruption té policier sañ ni jox ma 2000 ba do jall wala junni wala 3000 douanier sañ sa marchandise mi fii la dëkk gerte la euh, pataas la bu fi ñoré mango la nga ni bu jéggee da nga fay douane te warut ta fay douane problème am na loolu nag problème boobu lañ bëgg a waxtaanee teg ko ci taabal ji bokk ngeen ci ndax panel yi ci forom bi ñëpp ci bokk moo tax ñu def ko ci salle bu mag bi du lu ñuy nëbbu ku ci xalaat ne gis nga ci solution wala nga kii buñ nekkee ci salle bi bu ngoonee da nga poser question da nga wax bu communication yi pare pour ñu am base de départ ku ne la nga xam te xam ne yor nga ko nga génnee ko mais jàppub jaam bi yow xam nga ne am na loolu ñu ngi rapatrier ñoo xam ne nee nañ dañ leen a violé ñii dañ leen doon dóor sax ak di leen jami paaka waa doomu aadama vingt et unième siècle war nañ koo def loolu te ñuy sunuy doom di sunuy jabraat di sunuy rak di sunuy jabar di sunuy mbokk yëpp mais ñu ni loolu mais tawat jooju faw ñu seet ko nuñ koy faje ñun parlementaire lañu amuñu beneen solution waaye gis li nit ñi naan ñoom tawat la metti na ci seen i xol te buñ ko yëgee ñun mu metti ñu ñu ne nañ ko yekk teg ko ci taabal ji buñ ko yekkee teg ko ci taabal ji ñu xool yan solution moo tax bi ñu wootee àddina bépp a ñëw Nations Unies ñëw nañu Union africaine ñëw nañu CEDEAO ñëw nañu Maroc ñëw nañu Algérie ñëw nañu ndax Union africaine ñëpp la ñu andi ak waa France ndax ñoom ñëpp danañ wax sénateur français bi yor question yooyu mi ngi fi danañ waxtaan Saliou Djibo mi nga xam ne dañ ko dénk task force bi dina wax nee na ma suba lay def communication Cheikh Tidiane Dieye docteur dina wax Doudou Wade ñooñu ñëpp danañ wax seen i wax ñu waxtaan ci en tout cas mbir mi du sama mbir du mbiru politique mbiru askan wi la ñu bëgg yéen ñëpp presse yi ak ñëpp ñu xool ku nekk li nga ci mën a indi ngeen jàllale ko ba ñu faj buñ ci jógee am. ci waxtaan wi déggoo ci sama discours nee naa duma jiitu.

an ak rer ak ndek ak lepp mako yoral nit ñi convoquer presse bepp bepp na 8h fek fofa ñepp au CICES buñ joggé fofa dañuy ñew agn buñ paré def cérémonie officielle 18h buñ paré ma jox nit ñi après ñu ñew continuer liguey bi même